bon maintenant nag l'accusé de islamiste obscurantiste mm-hmm. jihadiste ah. xamal la <laughs> mais déjà <laughs> eh, terme yooyu sax concept yooyu dañ ko leeral saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun moom ñu am talent la ñu ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy wax waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te mu njariñ man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn nag ko société bi indile bénéfice mhm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bi man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp ko xam ne sa xool bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom da naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki danga nga dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala orangement Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeep bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasuli rabbil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fidèle ami téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci biir Fafa TV fu ngeen mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ji nga xam ne moom moo bàyyi ko ci suñu borom nga xam ne saa su nekk si turam la ñuy tàmbalee di ko sant si ay xewalam ñu mënul lim waaye itam di ko ñaan mu julli si yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ku topp seen yoon ba bis ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax dellu siwaat ak yéen suñu émission bi nga xam ne moom mooy jàngat comme ni ngeen ko xamee jàngat moom li ko tax a jóg mooy jàng ak jàngale waaye itamit di fàttali suñu bopp waaye di fàttali suñuy téléspectateur ay tomb ci suñu diine comme ni ngeen ko xamee jamono yi ñu toll ñun ñëpp war nañ xam ne ñu ngi si jamono yi dañuy wax aj tubaab di ko wax le pèlerinage n'est-ce pas donc au lieu saint de l'islam euh, gis nañ ni fi mu ne ujaaj yu bari ñu ngi ci wàccaay ba itamit xëy na euh, du ñàkk euh, démb rek ñu ngi dégg ñu ni xëy na am na jafe-jafe donte ni jàppoon nañ ni xëy na ren ak changement régime peut-être xëy na jafe-jafe yi wala dysfonctionnement yi buñ ko mënee wax dina dina dina dina wàññeeku waaye ala kulli xaal loolu yëpp dinañ ko jàngat dinañ jàngat xëy na jafe-jafe yi lan mooy cause bi lu ko waral ndax ki dalal tey du gan ci suñu biir jataay mooy professeur docteur Khadim Mbacké ñun ñëpp ñu miin ko nga xam ni euh, léegi kenn dootu ko présenté si biir jataay Fafa TV li tax ñu invité ko mooy moom non seulement xam-xamam dafa màcc si wàllum li ñuy wax aj waaye itam euh, bind na thèse de doctorat boo xam ne mu ngi tudd le pèlerinage à la Mecque le cas du Sénégal de 1886 à 1990 maanaam ci siècle buñ ko mënee wax la jël ay jàngat maanaam jàngat li nga xam ne ni moom mooy aj ci Sénégal moo xam niñ koy defee ak jafe-jafe yi loolu yëpp xëy na dina leer en tout cas ci biir waxtaan waaye balaa ñuy tàmbali professeur dañ lay jox nga nuyoo ak suñuy téléspectateur ñu soog a suñu waxtaan alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin muhammadin wa ala seetaan Fafa uh, ngi leen di sargal Euh, yéen équipe bu euh, Fafa TV bi teew tey leen sant ci yittewoo ngeen yittewoo xamle samay xalaat ci biir yi nga xam ne mooy xew ci réew mi maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di feddle rek sama sama bëgg a coopérer ak yéen ci saa ngeen ko soxlaa. jërëjëf euh, professeur wax dëgg yàlla ñun ñi toujours ñun ñooy am xëy na mbégte ak privilège à chaque fois euh, di la dalal ci suñu jotaay ndax ñu léegi nag ñu ngi ko doon waxtaan xëy na ñu bari dañuy umpale ni maanaam Sénégal bari nañ ay borom xam-xam yoo xam ni n'est-ce pas donc war nañ mën a jëriñu seen xam-xam en tout cas ku si mel ni yow alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan suñu borom dool dolli la wér ak wérle kàttan kon ñu ngi leen di fàttali rek ni émission bi nga xam ne moom la ñuy def euh, dafa am sponsor ki ko sponsorisé mooy li ñuy wax projet fu dooleel xam-xam nga xam ne kii ñuy wax docteur Ibrahima Khalilou Al moom moo ko jiite kon ñu ngi leen di woowaat rek à ce que yéen ñëpp ngeen participer nest ci projet boobu ngeen xam ne lépp lu ngeen fa def rek dafay nekk fa Hmm. professeur léegi ni maa ngi wax ni sa thèse de doctorat d'état yaa ngi ko hmm. def ci wàllum hajj mooy le pèlerinage euh, hmm. au lieu saint de l'islam le cas de Sénégal nga xam ne da nga si traité mën nañ wax kaaw un siècle waaye xam naa balaa ñu dugg si laaj rek li ñu bëggoon njëkk xam mooy li nga xam ne moom mooy périodinage aj màkka buñ koy wax mooy lan te tamit dañoo seetlu ni aju aj màkka à chaque fois benn période rek lay lay lay tombel léegi ginnaaw bi nga ñu leeralee aji màkk mooy lan nga wax ñu kañ lañ ko war a def ak yan mooy jour aj yi mhm. euh, jërëjëf aj màkk moom mooy rek dem màkk ak yéene jox farata euh, yoo xam ne ji mooy juróomeelu ponk ci lislaam donc jóge fa nga dëkk dem màkkatal mukarrama ak yéene aj ci ni ko yàlla bëggee ak ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee loolu la ñu tuddee aj aj nag euh, ni mu amee barab noonu la amee jamono euh, barab bi moom mooy màkk ak li ko wër dëkku màkk ci boppam ak li ko wër bu ñu waxee li ko wër ñu ngi ci jublu mina ak musdalifa ak arafat euh, ak fa ngay armale wala ngay àgg màkk loolu mooy barab yi nga xam ne mhm. mooy ëmb aj màkka bu dee ci jamono nag dafa am ñetti weer wala ñaari weer ak ñaar ak ak euh, fukki fan ñett nañu wax ñaari fukki fan muy weeru korite weeru diggi ak weeru tabaski mhm. yooyu ñooy weer yi nga xam ne ci mhm. la ñuy aj dëgg sax aj gi ci boppam ci weeru tabaski lay lay am waaye nag Eh, weer yooyu moom la borom bi tuddee weer aj ndax bu njëkk nit ñi dañ daan eh, boo bëggee aj ci at mi nag bala nga dugg ci bala ngaa mën a armal weer yooyu dafa tabbi waaye boo nekkee ci koor gi donte yaa ngi jógee sa ci koor gi pour aji eh, jógu tukki woo ci weeru koor faw nga xaar ba weeru korite wi dugg nga soog a armal nga soog a jógee sa kër bu la neexee mën ngaa armal ci yoon wi mm-hmm. wax ne fa lañ war a armale foofu ngay armale waaye weer yooyu mooy nga xam ne ku bëgg aji doo lu jiitu ñuy tàbbi mm-hmm. kon loolu mooy cadre temporel bi mm-hmm. ak cadre spatial spatial waaw effectivement macha jërëjëf professeur mu mel ni leer na si li nga xam ne ni moom nga ñu définir xaj waaye itamit ak jamono yi nga xam ne ni moom lañ koy defee mm. waaye professeur ñun dañoo seetlu ni fii Sénégal ñun dafa on a l'impression que dafa mel ni maanaam Sénégal mag rek mooy aji maanaam bu ñu nee aji màkk rek la majeure partie ay mag la ñuy gis ñuy ñoo xam ne ñoom ñooy dem màkk hmm. léegi bu ñu la bëggoon laaj rek lan mooy condition yi nga xam ne ni mooy tax ñu aji màkk ndax mag da cee bokk ak tamit naka lañ war a aaj la waajalee aj euh, aj màkk moom ku muy war mooy koo xam ne kii ab jullit nga euh, te loolu tax ñu koy wax mooy am na ñu aji màkka te du jullit ah. waaye nag pour ñu tuddee ko aj ci lislaam il faut nit nekk jullit il faut euh, mu nekk euh, majeur koo xam ne mat na góor wala mat jigéen mm-hmm. il faut aussi euh, mu nekk koo xam ne kii da ko man mm-hmm. waaw da koo man il faut mu nekk aussi ku am wér-gu-yaram ci wàllu xelam mm-hmm. Eh, buñ nee man nag eh, jublu nañ ci man ci jëmm maanaam ci wàllu wér yaram jublu nañ ci itam am kàttanuk alal maanaam man ko ci alal jublu nañ ci itam man ko ci wàllu sécurité eh, ndax xam nga aj dañ ko daan def ci anam yoo xam ne wóote naag ni ñu koy defee tey daan am ñoo xam dañuy dox mm-hmm. ñooñu am sécurité bokk na ci li ñu tuddee man aji màkk man ko ci sa wér-gu-yaram itam wax naa ko léegi ak e, man ko ci wàllu e, wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu santé wàllu wàllu wàllu alal ji mhm. wàllu wér-gu-yaram gi ak wàllu sécurité fi nga jaar ba àgg waaw yooyu bu fekkee eh, mënees na koo garanti mhm. bu waa almaaka day war mhm. dëgg la eh, am na ñu ko daan def te loolu daje waaye nag booba dañ koo def waaye nag warul leen moom yàlla moom tegu ko tegu mhm. ko ku ko mënut ci wàllu yooyu ma wax mm. macha allah mu mel ni leer na mm. euh, professeur waaye itamit bu ñu ñëwaatee rek fi nga xam ne ni moom mooy Sénégal mm. am nañ commission boo xam ne ni moom moo jiite n'est-ce pas li nga xam ne moom mooy wàllu aj gi mm-hmm. waaye seetlu nañ ne mm-hmm. en tout cas année yu weesu maanaam dafa mel ni dañoo seetlu ne année yu nekk daal mm-hmm. dafa mel ni ay jafe-jafe day am si aj yi ñu ngi dégg ñu naan retard de vol ñi nga xam ne tey lañ waroon dem ñu ñëw bu ñëwee ba aéroport ñu ne avion bi ñëwul léegi-léeg sax dafa mel ni sax am ay jamono yoo xam ne am na xam ne tàggoo woon nañ pour aj ñu dem ñu ne leen ah yéen kat seen tur nekk fi rek nangam sax maanaam daal ci gàttal daal bari na mm. ay jafe-jafe. Mm-hmm. xam naa bu ñu doon laaj rek comme yow bind nga euh, li nga xam ne ni en tout cas question liée au pèlerinage. Euh, mm. gëstu nga si bu baax a baax. Mm-hmm. bu ñu la doon laaj lan mooy cause problème yooyu lan nga ñuy wax. waaw pour dellu si ci li ma ci bind maa ngi ko tuddee pèlerinage au lieu saint de l'islam participation sénégalaise mille neuf mille huit cent quatre vingt doctorat d'état la woon. effectivement. ñu soutenir. Euh, mhm. le treize avril. mille cent quatre-vingt-onze. Euh, kon day mel ni biñ ko génnee ak léegi euh, biñ ko soutenir ak léegi mi ngi bëgg a. mi ngi bëgg a yàgg. effectivement maanaam bëgg at ak lu topp. Euh, problème yi ma ci euh, yi ma ci abordé bari na lépp lu aju ci aj rek mhm. aj màkka rek mhm. euh, donc am nay problème yu aju ci mhm. tukki bi ñu transport am nay problème yu aju ci dalal bi logement maanaam hébergement effectivement am na ay problème yu aju ci lekk gi am na ay problème yoo xam ne mu ngi aju ci euh, nekk nekk waa Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom lay fekk muy waa Arabie Saoudite mhm. transport bi yàgg na am problème mhm. euh, di ko waraloon mooy bu njëkk Air Afrique lañ daan jël te Air Afrique problème yi Air Sénégal am tey mhm. daana ko am mën am nag euh, wóote na ndax a la pèlerin yi gën a néew mhm. waaye daana amee problème problème retard ci dem bi wala ci dikk bi euh, wala boog bagage ñëw bagage yi des fa loolu demee noonu mhm. euh, problème yi nga xam ne daal moom lañu gis ci compagnie compagnie aérienne yi mhm, daana am euh, waaye li tax ñu mën a donc li li tax ñuy wax ci euh, pèlerinage ci deux mille vingt quatre mhm. euh, daana am daana am moo xam muy li nga li nga gën a leeral muy wàllu transport bi moo xam muy at ci aspect ci des mhm. euh, waaye lii lii niñ mën a niñ mën a wattandikoo mhm. jafe-jafe yooyu mooy teel a préparer eh, war naa wax nag ne aju ren gi ñii fi nekk nii préparé wuñ hmm. eh, dañoo fekk ñu préparé ko kon eh, dana xaw a ne ñàkk ak maandu nga ne nga bëgg leen a sippi problème yi problème yi <laughs> waaw parce que ñoom du ñoom ñoo ko préparé ñoom dañu ñëw rek fekk fi bagage bi ñu jël lii tax nag problème transport wàññiku mhm. mooy teel a tànn compagnie bi nga xam ne mooy mooy yóbbu pèlerin yi te lu compagnie boobu di gën di am ay moyens problème di gën di wàññiku ma naa sax du am problème maanaam eh, tey boo jëlee compagnie Air France wala mhm. Saoudia wala Air Maroc ñoom am nañ ay moyens yu dëgg ndax yu dëgg yu doy sëkk ndax dañoo yàgg du compagnie yoo xam ne barki démb lañ ko lañ ko créé effectivement mais c'est des compagnie yoo xam ne ñi am nañu cent ans am nañu lu ko ëpp hmm. am nañu moyen yóbbu nombre pèlerin yi ak nu mën a toll évidemment bu dañuy engagé wu euh, danañ xam ñi ñu ñi ñuy yóbbu nan la ñu toll hmm. ak ndax ñoom mën nañ leen yóbbu donc euh, Air Sénégal compagnie la bu bees mhm. dëgërëgul euh, donc mënut a assurer transport bi avec perfection comme ni koy xaaree. tout mhm. encore que li ma gëm mooy euh, autorité yu bees yi yaakaar nañ ni jàngal nañu li ma ci bind man ak li ci ñeneen bind. Mhm. donc bu ñu demee ba war koo préparer ñoom. danañ ko teel a eh, danañ ko teel a préparé lu lu bon bon juróom benn weer hmm. lu jiitu ñuy aj waaw juróom benn weer lu jiitu ñuy aj maanaam hmm. généralement rajab lu mois de rajab hmm. nga xam ne da nga xool aspect yépp te li gën a am solo ci mbir mi mooy compagnie bi nga xam ne moom nga tànn doon compagnie bu ko man am ay moyens waaw puisque même bu doon compagnie nationale bëgg ay client tax mu ne man na maa mën na maa trans mën maa transporter. Mhm. pèlerins yi mais il faut s'assurer que mën na ko dëgg-dëgg. maanaam autorités yi ñoo war a parce que ñoom ñoom ñooy ñooy kilifa yi pèlerins yi. bien état bi. ñoom war a gar ñoom ñoo war a vérifier. Mhm. Euh, man-manu compagnie bi nga xam ne moo ne man may transporter pèlerins yi. duñ ko choisir rek parce que mooy compagnie nationale. parce que compagnie nationale tam bu fekkee amuloo ay moyens c'est un c'est national te luy confier benn tâche boo xam ne bi mënu mënu ko allah donc loolu c'est pas affaire du tout te yaakaar naa ne parce que dégg naa réaction autorité yi mhm. yaakaar naa ne ñoom euh, buñ demee ba war a organiser pèlerinage deux mille vingt cinq mhm. non seulement dañ ko tàmbali ci waxtu ñu ko tàmbalee mais dinañ vérifier lépp surtout la capacité de la compagnie choisie euh, à assurer n'est-ce pas un transport correct de pèlerin macha allah hmm. jërëjëf professeur euh, mel na ni tudd nga cause yi nga xam ne ni généralement moom mooy cause en tout cas dysfonction waaw parce que bu dee ren mhm. dafa mel ni dañoo doon luyee ay avion yoo xam ne dañoo disponible disponible ah. te fañ ko soxla fañ ko soxlaa d'accord ah. nag footu ñu doon négocier ak ñoom la bien sûr waaw man dañ maa sant ne Euh, avion yi ñu war a luyee ren. 2024 uh-huh. pour ñu transporter transporter pèlerin yi. Uh-huh. Eh man damay damay damay damay def lu ma man pour que ka may luyee avion doon ko xam ne kii mën naa li avion yi Sénégal waxtu ñu ko soxla waaw du doon koo xam ne dafa am tuuti laxisme wala nangam wala amul ay moyens sax far. yooyu yëpp dañuy vérifié la te defe naa allah fekk 2025 yooyu moom mm-hmm. dana. macha allah mm-hmm. mu mel ni leer na professeur am na solo yaa ngi koy wax léegi nii en tout cas nouveau régime bi. peut-être mm. xëy na ñoom dañoo dañoo ñëw rek fekk na peut-être xëy na processus pèlerinage bi. Mm. n'est-ce pas tàmbali woon na. Mm. waaye itam mën nañu wax ni ki nga xam ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko. en tout cas tenir na benn réunion interministérielle. n'est-ce pas donc si wàllum aj ba ñëpp jàppoon nañ ne xëy na peut-être dysfonctionnement yu yu yu yi daan am. n'est-ce pas xëy ci am. léegi yaa ngi koy wax. maanaam euh, nekkul mandute tey ñu imputer leen. en tout cas dysfonctionnement bi ngeen xam maanaam hmm. am na ci waaye tamit est-ce que tamit amuñ si responsabilité tam parce que premier ministre comme tenir na réunion interministérielle ndax duñ si am responsabilité ñoom si euh, yi am nañ responsabilité euh, yaakaar naa ne amul benn intellectuel mhm. ci Sénégal te Ousmane Sonko intellectuel la mhm. bu réere ne man mi dong Sénégal yëpp maa njëkk a choisir le pèlerinage à la Mecque sujet de thèse d'État. tout à fait. soutenir ko ci université de Dakar. macha de six heures d'horloge. macha allah loolu ku mel ni Ousmane Sonko ko mënu ko umpule. macha allah donc bu ñu defee réunion bon interministériel moom am na lu mu tekki. parce que mhm. léeg-léeg ñu ne inter réunion wala conseil. interministériel interministériel élargi loolu day am léeg d'accord donc pourquoi pas <laughs> ñu ko. Mhm. Euh, pour ma mën faa teew wax leen. nan la ñuy organiser le pèlerinage ba du am benn rëq-rëq. macha allah xam naa ne am na ñeneen ñu ko mën a wax. man mhm. comme commissaire yeeg ñu commissaire ñu yor. Mhm. waaye ragal naa ne eh, dëgg yàlla thèse bi ma ci def bu fekkoon ne amul valeur ba mu war a am du ma ko soutenir. te soutenir naa ko am am mention bi gën. Mhm. donc le fait que ñuy wax ci pèlerinage te kenn xalaatuma. ñaawlu mu ko ñaawlu mu ko de. mais bett na ma effectivement bett na ma bett na ma macha allah. dëgg la professeur loolu tamit lu am solo lu ñu war a leeral la bon xëy na dañuy jàpp ne rek mooy li ñu doon wax au début rek maanaam ñun fii Sénégal dañoo umpule en tout cas maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wax dëgg maanaam ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi war a wax malheureusement dañ leen umpule maanaam ñeneen ñi warul wax n'est-ce pas donc ñoom la ñuy war a jox ñuy wax wala sax ñeneen ñi nga xam ne en tout cas question yi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a maîtriser ñu waroon ko jiite waroon ko mm. gérer mm. mel ni yow mm. yaa ngi koy préciser léegi yaay ki njëkk soutenir soutenir thèse de doctorat ci wàllum pèlerinage mm-hmm. ñun bett nañu lool mosuñu laa dégg ñu ni yow nommé nañ la commissaire au pèlerinage sax boobu ah. au moins <laughs> loolu nag moom danaa ci réagir ah, kon baax na ndaxte le président Abdoulaye Wade euh, woona le 8 novembre 2003. macha allah ci bureau le 8 novembre 2003 le 8 novembre 2003. macha allah ci bureau am. Mhm. boobu woote bi mu ngi jaar ci ku ñuy wax Abdoul Khadir Sow. Mhm. mu nekkoon directeur de cabinet bu président. macha allah bi ma ñëwee wax dëgg yàlla toog naa mu toog Idriss Seck toog. Mhm. moom mooy premier ministre. Abdoul Khadir Sow moom moo wax toog. mu ne man dama laa bëgg a dénk aj gi. macha ak mhm. wax dëgg yàlla euh, man naa gàntal. loolu sax surprendre na ko moom ci boobu président Wade. macha allah na ko. puisque moom dafa jàppoon ne euh, lu toll noonu bu la ko joxee da ngaa war a jóg euh, def ay pas de <laughs> <laughs> waaye ma gàntal ko mu bett ko lool. waaw. ma ne ko nag li tax ma gàntal. parce que kilifa itam bu la joxee teraanga ju toll noonu. bien sûr day xaw a doy waar nga di ko gàntal. te itam sama conscience itam euh, maanaam moo moo tontu. macha allah ma ne ko. Mhm. ndax ren ji nga jublu maanaam 2003 wala walla walla wala waaw dama ko sax bu dee ren. Mhm. c'est trop tard. xaw surtout tey c'est trop tard dire aj Màkka dañ koy préparer. macha allah ah, parce que bëgguma euh, échouer. macha allah te boo boo bëgg échouer boo bëggul ki ngay sant liggéey bi échoué da nga koy teel a wax. macha allah moins six mois avant le président te boobu ñaari weer ma koy wax ñaari weer la koy ma xam ne bu ma ko jëlee danaa ko jël pour euh, peut-être mën a wax na je suis un ancien. <laughs> commissaire au pèlerinage waaye en réalité mënul ko réussir. ci ñaari weer mënut a nekk. macha allah euh, waaw. te boobu li tax mënuma ko li koo nangu mooy dama xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñi dañ leen koo digoon. c'est pas le président moo leen ko digoon. Mhm. mais ñu jege président ñoo leen ko digoon. d'accord nga xam ne am na xëccoo ci suuf. en plus ki nga xam ne moom moo yaakaar ne moom la ñu nommé sama xarit. macha allah maanaam bu ñu mën bu ñu mën a day mel ni dama koo jaar ci suuf. dama ko suufu. macha sama xarita sama collègue la woon. Mhm. loolu loolu bokk na li tax ma ma ma gàntal. waaye li li ci jiitu mooy mu ne su ko réussir ci jamono. te la ma doon ragal moo am. Mhm. ndax kañ ko jox réussir ko. est-ce que mën nañ xam kan la woon. <laughs> non bëgguma wax kooka. <laughs> waaye kañ ko jox. Euh, ah. en 2003. en 2003. réussir ko. d'accord te dafa am sax scandale boo xam ne bii moom defu ko mais dañ ko tuumaal. Ah. waaw dañ ko tuumaal ba nga xam ne da bi mu ñëwee sax dafa feebar. waaw ah, donc li ma bëgg wax foofu rek mooy. Mhm. nit ki ak lu mu bëgg-bëgg teraanga mhm. na waxtaan ak euh, nge euh, ngegenaayam macha allah def examen de conscience pour xam ndax lii ñu koy bëgg a jox mën na koo réussir wala déet. macha allah ñu bari évidemment dañuy ruus wala ñu bëgg daraja ba tax ñu nangu. Mhm. waaye li ci mujj mooy échec mooy échec. te at moom dafa am échec. macha allah voilà. Mhm. donc effectivement Abdoulaye waa wax dëgg yàlla mas na ma koo proposé. Mhm. ma gàntal ngir xamoon naa ne at moom mënul koo réussir. pas parce que man mënuma. Mhm. mais parce que waxtu bi dafa xat. waxtu bi mi ngi ko waroon préparer dafa xat mm. effectivement macha allah te yaa ngi koy wax léegi nii maanaam mm. aj lu ñu war a préparer la au minimum six mois. waaw macha mm. waaye tamit euh, professeur comme ni nga ko waxee léegi ñun euh, en fait duñu bett nañu mais maanaam. Euh, surprise lañ lañ lañ am ci euh, surtout vraiment lii nga ñu annoncé nga xam ne hmm. euh, maanaam mu jaaxal kenn mësuma ko laaj aussi waaw ah, kenn mësula ko laaj dëgg la kay allah macha allah dëgg loolu am am solo la hmm. <laughs> macha allah kon ñu ngi lay jaajëfal ci danaa ci yokk ne thèse bi PUD e publié na ko PUD e mooy presse de Dakar effectivement ah presse université de Dakar. publié na ko bu yàgg ñu koy gis en décembre 2005. voilà effectivement maa ngi koy gis maa ngi koy gis c'est tout à fait dëgg la dëgg la donc ñi ko xam bari na. macha allah dëgg la kay. bon que le que le gouvernement les gouvernements successifs xamuñ ko. Mm-hmm. non non je ne pense pas. dëgg la xam na ko. tout à fait bon Macky war na ko. war na ko xam dëgg la euh, réalité est kenn mësul ma consulter. kenn mësul la consulter officiellement waaw. officiellement en tout cas en à part président Abdoulaye Wade keneen beneen euh, président mësul la mësul la officiellement pour dénk le pèlerinage bi. non. c'est-à-dire que nekkoon naa conseiller Macky Sall ci njëlbeen. parce mhm. que dama ko gëmoon ci njëlbeen. macha allah honnêtement. Mhm. Eh, dama ko yaakaaroon quoi laa bëgg a wax. la <laughs> ko yaakaaroon. Ah. yàgg naa koo gis. waaw ay ay kii daal wax. li muy li muy doon feeñal ci jamono yooyu hmm. mooy. Hmm. Hmm. respecter kilifa yi si sëriñ si. Ah, loolu taxoon na ak une certaine modestie au départ ah. tout à fait ah, dans dans les années disons ak deux mille treize. Eh, dama nekkoon ci benn. conseil eh, collège ay collège yu ay conseillers. ak groupe boo xam ne bii. conseiller. Ah, le président Macky Sall effectivement waaye moom itam boo ma demee ba xam ne ça ne marche pas damaa bàyyi. Ah, macha <laughs> mu demee ba melo yi ma gisoon ci moom ba tax ma bëgg koo jege. ba ma mhm. gisee ne mu ngi soppeeku. Mhm. damaa dem sama yoon. Ah, kenn dàqu ma. kenn dàqu ma te joxoon nañu condition yëpp macha allah dem nañ sax ba ubbi benn jël benn immeuble. Mhm. bu bu def fa la fa war a nekk lépp ci ay équipement. man ma nekkoon secrétaire permanent bu collège bi. macha waaye ba may dem itam damaa dem ba gis bis lu ma xamul dem seen. nga dem seen demee sax gisante nañu. Uh-huh. <laughs> gisante nañu mu ne yow kenn gisatul la mu ne ah sëñ bi. Uh-huh. ki nga xam ne moo moo jàppoon ci sama loxo ba andi mu sa bureau. Uh-huh. ba nga boole ma ci mbooloo moomu. dëgg dama jékki-jékki gisatuma ko. macha allah muy Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté waaw. d' ma demee ba mënatuma gis ne nag euh, euh, dëgg yàlla kon. mën na maa mën na maa rocc ku ndànk. mën ngaa rocc ku ndànk dem sa yoon. <laughs> waaye laaj na ma loolu moom laaj na ma lu tax kenn gisatu. lu tax allah. mu si ñoo a nag. man maa dem ba xam ne kii wu daal fait. Mhm. Euh, il faut aussi être assez clair. parce am du am bu set. dëgg la li tax ma bàyyi mooy dafa am question bu mu boo xam ne bii sama nattango ya ma bokkaloon collège ba mhm. dañ ci am avis bu bokkut ak. suma ëpp man. maanaam dañ see gis benn dañ see am gisiin mu teg sama gisiin mhm. te man wóor na ma ne la ma gisoon moo moo mooy dëgg. mooy li dëgg waaye moom dafa mel ni dafa dafa préféré la ca ña ña la ca wax. d'accord te man nag bëgguma nekk conseiller euh, boo xam ne bii dañ koy déglu waaye li muy wax dañ ko dañ koy jëfee. dañ koy jëfee waaw am na ci président égyptien yi ku ñu wax Sadat ah kenn ci ñoom. effectivement waaw bu la mësa bu la bu la mësa bëgg a doyee daal da lay nommé conseiller. Ah. c'est-à-dire conseiller kay raconter waaye du ko def. d'accord <laughs> <laughs> waaye da lay neutraliser daal da lay neutraliser effectivement te de lui di la fay. effectivement waaye li ngay wax du ko du ko. du si defee daal du mu ngi noonu maanaam conseiller fantôme ngay ngay nekk. à peu près en tout cas conseiller formel. conseiller baax day conseiller waaye dañuy def li muy def. waaw li def macha allah. jërëjëf professeur mu mel ni loolu leer na xam naa bu ñu ñëwaatee rek ci beneen laaj bi nga xam ne ni yaa ngi koy tudd léegi ni muy euh, wala sax avant ñuy ñëw sax ci ci laaj boobu yaa ngi koy tudd léegi ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne à chaque fois ñu ngi koy gis. ci hmm. aj bi. Hmm. te yow wax dëgg yàlla jàpp nañ ne ku ku ci gëstu nga. te hmm. effectivement loolu mooy li am sax. tey buñ la doon laaj maanaam pour résoudre pour saafara jafe-jafe yi une bonne fois pour toutes. ci nga ci li nga xam ne mooy dysfonctionnement aj maanaam lan ngay joxe comme solution. bon li ma ci bindoon lu ñu war actualiser la. parce que cent puisque 1986 ak léegi mi ngi bëgg a mat ñeent fukki at. dëgg la ñeent fukki at yu manqué euh, manqué tuuti. tuuti man mm, manqué tuuti. Mhm. Euh, kon. Mhm. Euh, évidemment am na mm, am na problème yoo xam ne yii peut-être solution yi ma doon préconiser man. Mhm. dootu doy pour mën koo régler. effectivement waaye daal li ma mën a wax mooy. bu ñu bëggee éviter problème parce que éviter problème moo moo moo gën bàyyi ba mu am ngay naan na koy régler. tout à fait nañ teel a nommé commissaire. teel a bu ñu nommé commissaire tam ñu nommé ku dégg arab. ku dégg sax mën naa ne arabisant carrément. <laughs> d'accord parce que en général nit ñu ñu jàpp ne arabisant bi peut-être arabisant la waaye nag affaire administration gestion yooyu xamu ko mais am nañ ay arabisant yu génnee naan. waaw am na peut-être am na. Uh-huh. am na ñoo xam ne génne wuñu ENAM dañuy dañuy jàngee ci euh, ci ay ay ay faculté wala ay écoles yoo xam ne dañu fa jàng. Mhm. administration wala management wala. donc am na ñoo xam ne arabisant lañ te mën nañoo gérer mbirum pèlerinage. macha allah nga baal ma ndax li nga wax mën nañ si déggee ni mës nañ nommé ay commissaire au pèlerinage yoo xam ni dégguñu woon arab. Euh, ca njëlbeen waaw bien sûr. bien sûr ca njëlbeen. a le premier commissaire nommé par décret. ñu ngi ko nommé 1983. 1983 ñu ngi tudd El Hadj Mass Joxaane yàlla na ko yàlla yere Mass Joxaane bi ñu daan dégg Mass Joxaane bi ñu daan dégg. ah mos na nekk commissaire au pèlerinage. mos na nekk en 1983. 1963 pardonnez-moi 1963. premier commissaire nommé par décret. par décret par Senghor. effectivement moom il n'était pas ñi ci topp ci moom itam. Euh, ki ci nekk njëkk a nekk arab sax mooy Moustapha Cissé. Moustapha Cissé effectivement am mhm. bu Pire. waaw kooku euh, moom moom la woon et en même temps dafa maîtriser wu ñaari langues yi. macha allah dafa maîtriser ñaari langues yi arabe ak français. Mhm. bu pare nekk nag nit intelligent. très intelligent macha allah mhm. diplomate chevronné. et euh, en plus de se lier avec ensuite am na ku wax. bari bari nañu ay ravissement effectivement ravissement ñu nommé après El Hadj Rawane Mbaye par exemple Rawane Mbaye effectivement macha allah dëgg la ak Thierno Diakhaté tout à fait Thierno Ka ki fi nekk ñi muy Aboubacar Sarr docteur la mu ngi génne ci même université bi mu génne man macha allah waaw waaw fa la amee doctorat macha allah donc xam na réew mi bu baax macha allah eh, dégg garab moom waxaale woon ah, dëgg la Euh, am na xam xam na culture réew ma c'est presque un fils de du pays du waaw donc loolu mooy li may qualité bi may njëkk a recommandé ki ñu nowe nekk ab arabisant xam réew ma xam culture arabe mhm. doon commando itam nag parce que souvent on parle de scandale euh, ay détournement bien uh-huh. nag may ko sañ-sañu proposer ay nit c'est vrai que toujours été le cas mais être proportion bi muy peut-être bi muy euh, proposé par rapport ak nombre mission bi mhm. euh, mën naa am du demee noonu mhm. donc nañ ko may mu choisir donte évidemment gouvernement bi di choisir ak ñeneen ak ñeneen tout mais daal nañ ko may mu choisir ensuite nañu réduire itam le nombre de missionnaires nombre de missionnaires waaw puisque man à un moment donné dama gis Nigéria mi nga xam ne moo ëpp Sénégal fukki yoon mhm. dañuy am ab mission boo xam ne ñaar fukki nit day doon ñaar fukki alors que ñun dem ba jege téeméer <laughs> donc euh, maanaam la euh, la politisation. politisation de la mission. Mhm. jaru ko. d'accord waaw maanaam bu ñu bàyyee kenn ku nekk nga ne ngay proposé si nit yoo xam ne doo seet ndax mën nañoo jariñ ci mission bi wala déet waaye daal yow say xarit lañu wala say ay ay ay politiciens lañu non non mhm. nañ wut ñoo xam ne euh, na nombre bi wàññiku waaye mm. ñi ci nekk nañu doon ñu ràññiku. d'accord waaw doon ay ndaw. ay ndaw mhm. eh, te itam liñ leen li leen di dénk ci liggéey ñu am volonté def ko. Mhm. Eh, te itam dégg langue bi nga xam ne langue nationale bi nga xam ne. ñu ëpp ci pèlerin yi moom la ñu. wax loolu daal. Mhm. Eh, ci départ lu am solo la. et puis mission bi ñu jox ko budget bu méngoo. ak liggéey biñ koy sant. te c'est très important. tout ndax aj nag euh, wax naa ne ponk ci lislaam la benn jullit bu ko man te defoo ko sa sa lislaam bu mat. donc jaar na même politiquement que ñu jox ko gëddaam mooy jox jox jox ko utal ko budget boo xam ne bii ñi ci ñi ciy ànd. Mm-hmm. ñi ciy ànd. Mm-hmm. Euh, dañ leen jox seen àq parce que itam nag liggéey bu exceptionnel boo ko joxee ay nit dañ leen jox seen àq. Mm-hmm. donc voilà euh, éléments yi nga xam daal bu ci tenir compte yaakaar naa ne problème yi dana dana wàññiku évidemment wàññiku laa wax parce que mm-hmm. pèlerinage mënut a ñàkk problème tout ndax chaque année pèlerin yi dañuy yokk waaw ah, xam nga ay ay nit bu ñu ay millions mm-hmm. euh, on parle parfois de quatre millions de pèlerins trois millions mais même deux millions boo seetee fa nga xam ne fa la ñuy dajee mm-hmm. deux millions sax xat bari na donc euh, mënut a ñàkk ay difficulté effectivement ku bëggut a sonn nga dem màkk dëgg la te mën naa am sax so coono bi dana tax dana bokk li tax yàlla di ko di ko nangu di ko nangu waaw mm. donc daal loolu daal mm. Mm. Euh, buñ ci yemoon rek mu doy ci wàllu nan la ñuy fexee ba régler problème yaa nag euh, loo xam li moom c'est sénégalais maanaam les sénégalais sont ah. dañ leen di jàmbat <laughs> ci metti mais naar yi dañ leen jàmbat yeneen pèlerin yi di jàmbat effectivement ndax fuñ ne dañ fa war a rang ñoom ñu ñëw ne duñ laaj dëgg la waaw bu ñu dugg ci biis yi par exemple ci lu wér war a dem war a dem Arafat mhm. ne dañu wala wala feneen mhm. ne ngeen rang ñoom duñu laaj la waaw loolu indiscipline la leneen tam mooy di togg d'accord suñu jigéen ñi euh, dañ dem naan di togg ah xam nga léegi màkka dafa dafa développé lool am na ay restaurateur d'accord am na ay waaye restaurateur yoo xam ne ay prestataire de service mm-hmm. nga dañuy togg pour pour pour mbooloo macha allah ah, te bu fekkoon na nga yóbbu ay pèlerins boo amee deux deux deux mille mm-hmm. ngay dem wut ab traiteur boo xam ne da naa ko damaa bëgg à huit ci suba nga mm-hmm. andil nga andil ma ñaari junniy ndékki à treize nga andil ma ñaari junniy añ wax li nga bëgg ci añ ndax jën nga bëgg ndax yàpp ndax nanga huit ci ngoon nga andil ma lu toll noonu ci ay repas mhm. bu ko defee dañ koy def correctement mhm. donc ajowuñu vraiment xam naa loolu na xaw na naqari yenn jigéen yi. d'accord <laughs> eh, dañ naan yóbbu fa jigéen pour mu naan damay lañ ci Sénégal yi leen toggal ceebu jën non mhm. muñ ceebu jën trois semaines wala quatre semaines loolu tax kenn dee donc googu wàll moom yaakaar na ne autorité yi bees nañ ci xeex euh, pèlerin yi bañ hmm. discipliné wu ndax loolu sagal Sénégal la ndax pèlerin mu nekk da ngay nekk ambassadeur réew mi nga xam ne fu nga jógee donc daal am na ci yoo xam ne daal bari yoo ci ñun la ci ñun professeur pour confirmer rek li ngay wax ni effectivement en tout cas ñi nga xam ne ñu yàgg ñi xam nañ nekk Arabie Saoudite en tout cas jàngee fa sax hmm. toujours même chose la wax bokk na ci problème yi nga xam ne mooy li gën a rëy ci sénégalais mooy problème indiscipline hmm. ba ñu si joxe exemple ay réew yu mel ni ay Chine ay Indonésie nga xam ne ñoom hmm. dañuy am mbooloo mu bari waaye dafa mel ni kenn benn guide mooy seen guide lu mu leen wax wala signe bu leen jox da ngay gis ñu def nam dañuy hmm. ran da ngay gis mais daal maanaam da ngay gis ci mbooloo àdduna yëpp sénégalais dong nga ci ràññeeku ci indiscipline am loolu tamit wax dëgg yàlla pour confirmer rek li nga wax waaye tamit professeur bu ñu la doon laaj tamit léegi yaa ngi koy wax maanaam ci mission ñi nga xam ne ni ñoom ñooy dem pèlerinage moo dafa mel ni dañ ko politiser mm. te ñun gis nañ ni par exemple lu mel ni Sénégal mm. bari na ay yoo xam ne ñu ngi jàngee n'est-ce pas donc Arabie ñu ngi ñu ngi màkk am na ñoo xam ne tamit ñu ngi n'est-ce pas mm. Médine est-ce que commission bi waruñu jël en tout cas bu ñu waree def aj waruñu jël étudiants yooyu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nga xam ne miin nañ no seulement aj waaye itamit miin nañ terrain bi. Mhm. ñu jël leen associer leen par exemple ci ci ci commission bi wala lool day am. loolu lu am solo la li nga wax nii lu am solo la parce que euh, bu ñu mënee bu ñu adopté solution bi ma noonu loolu dana wàññi missionnaire yuy jógee Sénégal euh, te it bu fekkee commissaire bi ab arabisant la. Mhm. moom xam na ña fa nekk. xam na ku mën ak ku donc mu des nag léegi disponibilité ñooñu. Euh, te am na jamono ci pèlerinage bi wax ne foofu vacance la. macha allah euh, jamono pèlerinage am na ci am na ci ay fan yoo xam ne vacance la. donc bu mayee boobu sañ-sañ. Mhm. commissaire bi. Mhm. effectivement dana nekk solution. bu permettre ñu wàññi nombre missionnaires yi nga xam dañuy jógee Sénégal. dem dem Màkk. tout à fait euh, voilà donc je pense que c' est une bonne idée. dans le passé doon nañ ko def. Mhm. mais mën nañ ko reconduire améliorer ko. macha allah. waaw ah, jërëjëf professeur du ñàkk autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan du ñàkk dinañ euh, gis émission bi te du ñàkk xëy na incha allah bu ñu bëggee en tout cas améliorer li nga xam ne ni moom mooy le pèlerinage à la Mecque allah dinañ la consulter waaye itam professeur dañuy jàll ci beneen registre mooy ki nga xam ne mooy le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye hmm. le 28 bi ñu génn dafa woote benn dialogue boo xam ne Mhm. lu mu ci wax mu ne pour réformer n'est-ce pas donc la justice mhm. nekkoon na sax peut-être xëy na mhm. euh, ay promesses am en tout cas des promesses de campagne buñ ko mënee wax noonu ñu gis ni woote na en tout cas woo nañu bari n'est-ce pas buñ la doon laaj rek sa xalaat sa appréciation ci dialogue boobu noonu lan nga ñuy wax euh, rafet naa ñaari yëf initiative ci boppam rafet naa ko ak euh, li woo ñëpp macha allah ah, l'inclusivité. nga xam ne amul kenn ku ñu dàq. Mhm. même ñi nga xam sax ay xulóowaale yi <laughs> xulóowaale président bi ñu ngi ci biir. donc loolu rafet naa ko. mu des nag léegi mhm. eh, application et résolution. des conclusions. loolu daal laa mhm. bëgg moom ñu def ci différence. parce que ñi leen jiitu woon daan woote ay dialogue national conférence nationale mais bu bu bu bu ñu appliqué la nga xam moo cay génne. doon nag comme ñoom nag rupture lañu la ñuy wax mhm. foofu na fi rupture bi feeñ maanaam li nga xam ne daal ña fa nekk eh, ànd nañ ci mhm. li nga xam ne conclusion la yoo xam ne yi adopté euh, à l'unanimité yooyu nañ ko nañ ko nañ ko génnee nañ nañ ko appliqué mhm. je le dis euh, maa ngi koy wax parce que euh, en 1981 Abdou Diouf dafa convoqué convoqué woon li ñuy wax état généraux sur l'éducation et la formation mhm. Sénégal gépp la wax waaw Abdou Diouf d'ailleurs euh, l'habitude de dire sans inclusif ñaare bu daal wax loolu la koy tëjee d'accord mais nangam sans inclu inclusif sans inclusif sans exclusif alors euh, dajale woon effectivement Sénégal en 1981 ñu def états généraux mais nit ñi wax li nga xam ne mooy si sikku système éducatif yépp mhm. ñépp a nga fa woon bàyyiwuñ dara alors mais appliqué wu <laughs> maa ngi fàttaliku loi d'orientation bi nga xam ne jubóo mhm. euh, ko moo ko moo ko moo proposé mhm. mu jàll dafa safaa dafa dafa salfaañe mboolem loo xam ne lii consensus la woon ci waaw waaw ah. tout surtout affaire éduca euh, l' de l' éducation religieuse mais bàyyiwuñu woon dara vraiment macha allah waaw ah, mais di appliqué ko kon loolu laay ragal mm-hmm. euh, mais encore ci sama rafet njorto gi ma am ci ji fi nekk mm-hmm. tax na ma yaakaar ne rupture bi dana feeñ foofu mooy lu ñu wax lu Sénégal yi bëgg ñoom ñëpp mm-hmm. danañ ko def macha allah waaw ah. wala ñëpp ci ñoom mbokk et naturellement sax loolu sax moo doon moo doon laaj bi sa topp ndax dañoo gis ni effectivement yaa ngi koy rappeler léegi mooy ñu bari en tout cas ses prédécesseurs woote hmm. woon nañ dialogue même hmm. bu dul justice sax yaa ngi koy rappale le hmm. dialogue euh, assise nationale sur l'éducation maanaam daal woote nañ ay dialogue yu bare bare bare ba ci président bi fi jógee muy i Sall yàgg na woote ay dialogue ba sax xëy na ñu bari et li daawuñu dem parce que dañ naan dialogue bi daal euh, maanaam du am du am du am aboutissement léegi justement ñi nga xam ne moom mooy la nouveau régime nga xam ne ñoom rupture lañ woote est-ce que jàpp nañ ne maanaam dialogue bi nga xam ne moom la woote ci justice en tout cas dina aboutir ak nan lañu war a def ba mu aboutir waaw du moment que nañu may nañu kenn ku nekk mu wax xalaatam mhm. léegi nag participation participants yi ñoo war a jël seen responsabilité wax la ñuy xalaat moo xam neex na président moo xam neexu waaye majorité bi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy seet ñoom lan lañ bëgg te mënut a ñàkk waaw am majorité boo xam bi maanaam loo xam ne li majorité moom lañ bëgg. tout à fait puisque bu fekkoon ne ñoo discuter te d'accorduñ ci dara en ce moment là kon échec doon. yaakaar naa ne ña fa nekk euh, ay Sénégal lañ quand même ay ay ay lañ ay kilifa lañ ay intellectuel lañ yaakaar yaakaaruma ne dañ leen woo ci convoqué leen ci lu mel noonu euh, may leen ñu waxtaan ak seen sago ñu génnee peut-être d'accorduñ ci dara loolu mënu mu ko mënu donc euh, li am solo daal moom mooy nañu appliquer. Mm-hmm. li nga xam ne moom la moom la mooy mooy résolution euh, assise yi mm-hmm. euh, am na aussi loo xam ne lii bon euh, man invité ma mm-hmm. mais mën na maa comprendre parce que il faut privilégier quand même les spécialistes ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy wu justice comme avocat yeeg magistrat yeeg ainsi de suite ñooñu ñoo ñoom lañu ñu war a privilégier. parce que ñoo ñoo ñoo koy dund ñoo impliqué wu directement ci kii bi waaye li ma li ma li ma li ma yitteel ci li ma li ñuy wax mooy l'indépendance de la justice. kooku moom euh, amul woon ci Sénégal franchement. Mhm. waaw ci li ma fàttaliku parce que man euh, quand même maa ngi ci maa ngi Dakar depuis quarante six ans. nekk sax en quelque sorte. Euh, euh, un fonctionnaire de l'État. parce que j'étais à l'IFAN à l'université donc mhm. par décret ah. présidentiel. Mhm. donc maa ngi suivre lépp. Mhm. mais indépendance bi justice amul woon. sax <laughs> le président Wade moom comme il était franc. da ko doon wax. Ah, waaw am na benn réunion bu mu bu mu dajeeg ay ay magistrat foofu ne leen yéen da ngeen di wax indépendance la justice mais ku leen joxoon indépendance ngeen delloo ko loolu Wade koy wax. Ah. Macky Sall mi itam mu fi jógee barki dem moom itam en quelque sorte reconnaître ne indépendance n'est par réaliste. effectivement waaw parce que ki lay fay bon <laughs> waaye xam nga loolu ça ne tient pas debout. tout à fait bon uh-huh. euh, puisque magistrat dañoo war a am indépendance pour que nit ñi am confiance ci li ñuy àtte. waaw parce que sinon bu fekkee dafa leer nañ ni ñoom amuñu indépendance politique yi ñoo leen di dicté li ñuy li wax exécutif moo leen dicté li ñuy def mais en ce moment là nit ñi am confiance ñoom. tout ah, loolu moom taxul ñuy wax état de droit. maanaam justice boo xam ne n'est pas indépendante euh, ba tax nit ñi gëmuñ ko loolu moom bokkut ak état de droit. donc euh, nañu fexe ba mboolem recommandation yi nga xam ne dañ ko def ci assises yi liñ ci gën a liñ ci njëkk a appliqué mooy jox justice son indépendance. tout à jox justice son indépendance en tout mm. cas moom la sénégalais yëpp soxla te mm. tamit loolu itamit moom mooy indi mandute pour mm. que réew n'est-ce pas donc mën a dox yaa ngi koy wax léegi euh, président Wade moom reconnaître na ni euh, justice amul indépendance bu leen ko joxo sax ñoom ñoo koy delluwaat ba pare aussi nga préciser lu am solo mooy par exemple c'est des fonctionnaires état moo leen fay mais professeur euh, bu ñu gisee par exemple en tout cas yenn yenn réew yu bari ku si mel ni États-Unis ils ont une justice indépendante. Hmm. pourtant euh, xëy na juge yi fa nekk. ñoom it hmm. ce sont des fonctionnaires. Hmm. léegi est-ce que ñun tamit mënuñu am cette cette indép maanaam justice bi mënuñu am cette indépendance là euh, ñu bañ a jàpp ni xëy na ñoom dañ leen di président bi moo leen di fay moo leen di fay. Oh, waaw euh, la justice lu mën a am la moom. lu mën a am la. waaye nag mënu ma ne réew sangam am nañ ko réew sangam woon. waaye lu mën a am la. bien Euh, ah, euh, États-Unis bi nga tudd léegi. Mhm. la politisation de la justice am na fa. tout waaw am na fa. effectivement waaw. effectivement maanaam l'acharnement de euh, de de de l'État de New York. tout à wala de de de tribunal bi àtte Trump mhm. actuellement. Mhm. acharnement bi mu am ci ci kii c'est pas politique génnu ci. tout à fait ci. dëgg waaw. maanaam da ngay gis benn euh, certains procureurs yi nga xam ne dañoo bokk jëmee parti. Mhm. dañuy acharné wu contre euh, koo xam ne kii it dañ ko accusé te mu jóge donc li mu bëgg a wax daal mhm. ci leeral mooy rek euh, indépendance de la justice moom lu relative la tout à fait lu absolu am na am na am na dëkk yoo xam ne fa gën a tane lool mhm. am na dëkk yoo xam ne dafa amul sax carrément waaw macha allah professeur euh, ñu ngi leen di fàttali rek ni ñu ngi suñu jotaayu jàngat ak ki nga xam ni moom mooy professeur Khadim Mbacke di leen fàttali itamit ni émission bi maanaam li nga xam ni mooy projet fu dooleel xam-xam moom moo ko sponsorisé ñu ngi leen di woowaat en même temps ngeen participer n'est-ce pas donc si projet bi professeur ñu ngi egsi suñu cëppaandawu émission waaye xam naa li mujj li ñuy laaj rek mooy ki nga xam ni mooy le ministre conseiller Cheikh Omar Diagne dafa defoon benn sortie en tout hmm. cas fii sax la ko defee Fafa TV hmm. moom mu wax ni moom yéeneem hmm. mooy que ni palais en tout cas ñu dem ba tabax fa juma ñu fay julli n'est-ce pas donc ñi nga xam ne mooy employé di fa julli waaye itamit sax ba si président sax ñëw tamit di fa julli ñu am imam ñu koy xutba nest pas ba pare aussi di ko fàttali maanaam li nga xam ne ni mooy responsabilité am li ko war ci réew mi. Hmm. waaye nag euh, loolu ah ñu jàppoon ni en tout cas képp kuy sénégalais au delà sax ñu pour bañ a wax ni képp kuy jullit maanaam képp kuy sénégalais nga war a mën a rafetlu loolu. Hmm. Euh, mais dañoo gis ni en tout cas dafa am ñu bari ñoo xam dañoo jug ñaawlu loolu maanaam hmm. fustigé ko mën nañ ko tudde sax mooy Moustapha Diakhaté. xam ne wax nga ko léegi sa xarit la moom en dafa génn wax ni. loolu vraiment. en tout cas taxé en tout cas ki nga xam ne mooy ministre Cheikh Omar Diagne mm. le islamiste wax ni daal ci gàttal mm. daal moom dafa respecté wul li nga xam ne ni moom mooy laïcité mm. te ba pare itamit mu sàkku ci président ni sax da ko war a sax dafa war a sax tekki ndombal tànkam <laughs> naka ngay jàngatee réaction li nga d'abord li nga xam ne mooy li la loolu la ministre Cheikh Omar Diagne wax ak réaction wu Moustapha Diakhaté euh, professeur euh, Cheikh euh, Omar euh, Diagne. Mhm. Euh, xamante wuñu personnellement. waaye yàgg na ko suivre nit ku am courage la. nit ku honnête la. honnêteté intellectuelle. Mhm. Euh, li wax li ci ëpp dégg naa ko. Mhm. te itam bettuma. macha allah bu kenn yaakaar ne nit ki buñ ko dugalee ci gouvernement bi day daal di weddi boppam. maanaam lam doon wax lépp mu teg ko fi suuf di wax loo xam ne day mel dañ koy dicté mm-hmm, mm-hmm. donc euh, am na sax fu ma bindee benn post di wax ne il faut pas ñu yaakaar ne Cheikh Omar Diagne day def figuration ci pale bi day assumer responsabilité bi léegi bu neexee ñu ko fa yóbbu falilahi alhamdu bu leen neexul mu dem ci lam nekkoon donc je suis entièrement d'accord ak li mu wax il n'est pas Euh, scandaleux mhm. du musiba mhm. ñu tabax jumaa ci palais mhm. bu yàlla dogal suba ñu am président catholique ah. mu tëj ko dëgg <laughs> taaka nga fa ah. du tee di ñoom di continuer di jullit tout à donc yooyu yëpp ay dafa mel ni ñun dañuy traîner ay ay ay jeexiiti politique coloniale tout à fait waaw ah, maanaam laïcité boobu moo ci moo ci njëkk mooy njëkk mooy jeexit yi nga xam ne dafa am ñoo xam ne ñi dafa mel ni feebar la ci ñoom tout Mais laïcité du n'est pas une œuvre divine. Vraiment. Moi, j'assume que nous nous organiser ab référendum bu bu wóor ci Sénégal nit ñi approuver la laïcité en connaissance de cause. mën na am bu dee bu ñu dee approuver la laïcité d'ailleurs sax dañu jox chiffre. wala bu ñu joxee chiffre mën na seen ko contester. puisque bala ngay mën a ne d'accord naa ci laïcité wala nga xam luy laïcité. bien sûr bi nga xam ne moom la français yi gëm moom yaakaar moo ne ab musulman sénégalais mën na ko approuvé hmm. mooy dàq yàlla yàlla bokkul yàlla bokkul yàlla hmm. bokkul loolu du choix wu sénégalais bu neexee nag état mu ne mu ne mën a waaw euh, def naa ko parce que def naa référendum quatre-vingt-dix pour cent ne bagal mais quatre-vingt-dix pour cent sénégalais boo leen laajoon luy laïcité duñ la ko wax. xamuñ ko xamuñ ko. effectivement donc boobu sax lu mat a remettre en cause parce que am na réew yu ñu war yoo xam ne ñoom seen constitution laïcité nekku ci. d'accord donc laïcité bu fekkee du du nit ñoo ko xam ba noppi tànnal seen tànnal leen tànnal ko seen bopp. Mhm. du lu ñu mën a laayee pour ne kenn du wax lii kenn wax laa. mais de toute façon état moo laïque mais nit ñi ñoom ay ay mhm. wala chrétien wala leneen. effectivement donc boo nommee quelqu'un euh, auprès du président kooku dafa war a am courage mhm. li nga xam ne moom lay xalaat mu def ko. mu wax ko mu wax ko donc li mu wax man d'accord naa ci hmm. bon maintenant nag l'accusé de islamiste obscurantiste hmm, hmm, jihadiste <laughs> ah. xamul lan <laughs> mais déjà terme yooyu sax ko war a leeral vraiment vraiment que ah, puisque ah. nga ne musulman bi euh, ayib la ci moom nekk islamiste islam politique il est libre yow vraiment nekkee communiste da ngay wax ne communiste mu ngi noonu pourquoi <laughs> musulman ki ngay tuddee ki ngay tuddee islamiste bu fekkee islamiste islamiste mooy ku bëgg Euh, l'islam am ab cëram ci nguur gi. Mhm. mais il s'assume vraiment loolu c'est pas étonnant pour un musulman de de de dama bëgg ñu àtte réew mi bàyyi xel ci l'islam. tout à fait parce que si la population est majoritairement musulmane. Mhm. mais pourquoi pas. parce que ni ñuy gouverner am réew amul kenn ku ko mën a wax ku mooy waa réew ma. bien sûr c'est pas quelque chose loo xam ne nga américain ñoo la koy dicté wala français yi wala italien yi non. Mhm. waa réew mi ñoo war a wax niñ bëgg. maanaam même les lois dafa war a émaner de de de de la nation du peuple donc ñun ñoo am complexe defe lépp dañ ko war a jële ci France wala Amérique wala feneen hmm. mais Sénégalais yi ñoo wax nan lañ bëgg ñu gouverner ko waaw ah, même les lois doivent être conformes à la volonté des Sénégalais à la culture sénégalaise effectivement waaw ah, donc boo demee ci àdduna la plus petite nation d'Asie hmm. lakkam lay lakk langue officielle. macha allah ah. <laughs> Euh, la muy li waaye muy attee ñi mu ngi koy jëlee ci culture réew <laughs> du ju ay loi américaine wala français dama koy appliquer ci euh, Thaïlande par exemple. <laughs> non ko def donc ñun rek ñooy euh, ñooy recopier. reproche yi nga xam ne France moo koy def nit ñi ñi defee Sénégal ak France ñoo yem ci bokk wàll. parce ay termes islamiste jihadiste Euh, salafiste tout ça France moom la ñuy jëfandikoo am na ki nit ñi ñoo xam ne ñi dañ koy adopté tel quel te boo leen laajoon sax ñu firil la ko duñ la ko firil ñu ñu koy taxé ñeneen ay Sénégalais comme ñoom non les Sénégalais sont libres bu ñu dee musulman mhm. dañuy assumer seen l'islam mhm. ku ci jàpp ne l'islam mën naa attérébi nga waaw mën naa attérébi bi ci amma jihadiste moom moo gën a sax eh, aberrant waaw ah, mooy jihadiste mm-hmm, mm-hmm. puisque jihad moom ci lislaam amul benn jullit bu wóor te def jihad dafa am nag ay formu jihad tout sa bakkan jihad la mm-hmm. macha allah sa bakkan mooy nga fexe nga fexe bañ a ëppal ci dara doo lekk lu ëpp ah doo naan lu ëpp du sëy lu ëpp jihaadu nafs loolu lay tekki mais jihaad dana nekk itam ci alal boo gisee ab télévision bu baax boo xam ne mu ngi def liggéey bu am solo nga yàlla may la may la alal nga jël ci aslaf jox encouragé leen ko loolu jihaad la. macha allah jihaad aussi boo gisee lu bon loo xam ne ñu koy def comme ñi saw ci mbedd meeg ñiy def lu kenn xamul ci mbedd mi mhm. nga di leen conseiller di leen di leen jubbanti loolu jihaad la. macha allah la la la la forme extrême nag mooy di ak ak ak ngànnaay mais. ku ñu occupé sa réew da ngay toog di xo di xool naan du ma def dara damay bàyyi rek ñu ba gaañ ñu bëgg a bu fekkee jullit nga te li ngay li ngay def nga man cee dee mhm. da ngay def jihaad ci turu lislaam da nga yéene li lislaam tudd di jihaad donc ki jóg ci ci benn réew yor ay ngànnaay gis ni lii jaaduwul mu ni ko xeex te yéene ca jihaad kooku kooku kenn mënu ko ŋàññi mhm. di su wax ne jihadiste la bu fekkee jihadiste mooy yàpp na ne mënees naa def recours au jihad yenn cas yi mhm. ko islam bu ci nekk doo tudde ko jihadiste lu ci nekk résistance la c'est voilà donc am na ay ay ay ay wahhabistes ak yooyu yooyu c'est c'est des histoires un choix tout la ñi tudde seen bopp wahhabiste ñooñu il se réfère à un islam à une vision de l'islam vision orthodoxe loolu mooy seen gisin mhm. ils bu fekkee da yow soufiste nga te yow itam nga gis ne loolu mooy forme bi gën ci l'islam mais deesu la deesu la deesu la jàpp ngir loolu sa xalaat donc ku wax liberté d'expression wax nga lii maanaam li Omar Diagne wax daal man gisuma ci dara normal la mhm. bon Moustapha Diakhaté xam naa ko bu baax a baax mhm. c'est un homme euh, franc même bi mu nekkoon ci lii ak yëpp mhm. mu nekk ci banque centrale ak feneen nit la ko xam ne kii li mu gëm lay wax heureusement que nag ñun dañu jàpp ne lu mu gëm li mu gëm rek <laughs> mat mat naa gëmu gëmu ah, ah. waaw da ne wax xalaatam ah. waaye man yaakaar naa ne Omar Omar Diagne mhm. a raison mhm. et Moustapha Diagne cette fois à tort à tort waaw wax dëgg moom xalaat loolu te apprécié naa ko personnellement mhm, puisque gannaaw yàlla moom moo tax euh, ma xam Macky Sall et puis de toute façon moom franchise moom xam na moom ñëpp da reconnaître dañ ak courage am courage bu juwee <laughs> effectivement professeur yaa ngi koy wax mu mel ni mu Moustapha Diakhaté moom xam nga ko bon te moom dañoo seetlu ne en tout cas à chaque fois hmm. maanaam sur les questions de l'islam daal da si juum ba si sax bu yàgg bi nga xam ne si li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na ah. amoon na lu bëgguñu si delluwaat daal mais ah. li ma bëgg rek leeral bon li ma bëgg rek peut-être la ah. laaj la peut-être du laaj ñu bari hmm. en tout cas dañoo jàpp ne Moustapha jaxate ab orientaliste la ndax yow da d'accord ak absolument pas man xam naa ko bu baax parce que ñaar ñoo bokk dëkk Touba xam ah. naa xam naa foofu dëkk ci Touba xam naa famem d'accord nit ñu baax lañu mhm. déjà de boo nay jaxate rek à Touba ay sëriñ lañ macha allah hmm. donc bett na ma daal vraiment cette fois-ci bett na ma position yooyu ngay wax am na ci yoo xam ne dégguma ko mhm. waaye je pense que dama koy conseiller sax mu delluwaat gannaaw parce que mag la tout à fait donc il faut mu réfléchir macha allah delluwaat ci cosaanam mhm. euh, yenn yi même bu bu nekkee ci xelam te mu bañ ko wax macha allah ah, tey tuub nag. macha ah, allah tuub parce que ah. mag comme <laughs> ñun ñëpp ay mag lan dëgg la euh, politique waruñoo jaral nag ñu wax loo xam ne lii ëllëg dañu koy laaj. macha allah waaw parce que lii lii lii lii li euh, liy wuutale musulman ak ku dul musulman mooy balay wax day réfléchir. macha allah day day day tenir compte aussi ci bis bu ñu ko ne yoo buñ ko dugalee ci baam mi lañ koy laaj. macha allah yooyu da ci da ci bàyyi xel. donc man daal maa koy conseillé comme doomu doomu daara mi ngi mi ngi dal ci kaw. Mhm. <laughs> mouvement doomu daara donc bu ko politique euh, fab bi. d'accord waaw ne delloo gannaaw daal. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla man loolu laa ko naay woon. macha allah di wax dëgg te ñeme mhm. ko. loolu laa loolu laa ko naay woon waaye cette fois si moom. wax dëgg yàlla bett na ma loolu daal. macha allah jërëjëf professeur mu mel ni agsi nañ suñu cappaandawu émission. yaa ngi koy wax léegi forme jihad yi bari na hmm. euh, jihad bokk na ci n'est-ce nga jihad ak sa sa sa bakkan waaye itamit sax nga gis loo xam ne peut-être xëy na ci l'islam lay dox n'est-ce donc nga jihad si kon mu mel ni li nga xam ne mooy projet waqf bi nga xam ne mooy dooleel xam-xam hmm. ñu ngi si woo ñëpp ñu ñëw jihaad si hmm. waaye itamit ñu ngi woo sénégalais yëpp suñu téléspectateurs yi hmm. ñu ñëw itamit jihaad ci chaine bi nga xam ne moom mooy Fafa TV <laughs> ndax chaîne bi itamit li ko tax a jóg euh, professeur mooy comme ñëw seet si ñu mel ni yéen ñun wax dëgg yàlla ñu bari dañ ñuy woo ñoo xam ne ne xëy na jàpp nañ ne xëy na dañuy bëgg wax mais ñun dañoo am li ñuy wax mën xëj mm. n'est-ce pas ñun suñu yitte mm. mooy ñu si mel ni yow mm-hmm. ak ñeneen ñoo mm. xam ne ñu dul yéen ñu ñëw joxe seen xalaat ñun dañoo jàpp ni yéen yéen a war a wax ñeneen ñi war a wax yëpp maanaam gisuñu maanaam seen wax n'est-ce pas donc moo am njëriñ kon ñu ngi woo téléspectateur yëpp di woo Sénégalais yëpp ñu ñëw jàpp ci chaîne bi ñu sponsorisé ñu ñëw def si seen doole. Mm. ak seen dërëm. Mm. kon ñu ngi lay bàyyi professeur. nga mm. joxe sa kàddu gu mujj ñu tëj. waaw man daal bu mujj bi moom mooy eh, ñi nga xam ni ñoo woote woon pour eh, Pastef. Mhm. nañu jàppale Pastef jàppale ci anam yépp. tout maanaam bu dee défendre koñ ko défendre. waaye bu dee def ay action comme ñi doon def démb investissement humain. nañ ci nañ ko ci jàppale nañ ko ci jàppale comme nañ ko jàppalee woon pour mu ñëw ci pouvoir bi. Mm-hmm. donc défi yi bari na. waaye pour être conséquent képp koo xam ne kii danga nga leen a woteel. Mm-hmm. nga leen jàppale aussi pour ñu pour ñu pour ñu affronter défi yooyu pour pour régler donc problème bi bari na lool. problème bi bari na lool. Mm-hmm. Euh, waaye nag mun am nañ yaakaar ne yoon wi ñu jaar ñoom. vraiment parce que maa ngi leen déglu bu baax. macha yoon wi ñuy jaar mooy yoon wi. tout à waaye nag il faut que nit ñi jàppale leen ci au lieu que ñuy ñuy jàmbat fu ñu toll. justement waaw parce que jàmbat rek du régler. il faut ki lay ki lay dimbale pour régler la say problème nga ànd ak moom ci loolu te ndimbal la def ci sa loxo ndimbal na ci fekk loxol borom donc vraiment am naa yaakaar ne dinañu réussir <laughs> mhm, mhm. waaye nag eh, yàlla dafa wax ne inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim macha allah ku bëgguute soppiku kenn du la mun laa soppi macha allah ku bëgguute soppiku kenn mun laa soppiku kon nag nañ nañ jéemoo soppiku ñun ñëpp ànd ak ñoom ci li ñuy wax te ko def mhm. ñu jàppale leen loolu daal man mooy sama mhm. xalaat macha allah ci ni ñuy def bañ réussir macha allah hmm. jërëjëf professeur boo ñu ko permettre xëy na tëjoon nañ sax boo ñu ko justement ndax dafa nekk lu lu lu am solo mooy dañoo seetlu ni en tout cas dafa am genre tentative de déstabilisation wu régime bii nii dañ koy gis que ce soit ci journaliste yi maanaam daal fépp foo gis foo dem daal ñu ngi gis ni daal dafa mel ni régime bi fi nekk dafa am ñoo xam ne ils sont prêts pour déstabiliser ko parce que lu tax hmm. ñoom ñu ngi toog ci ñu ngi tegu en tout cas ci yoon bu baax. Mhm. te yaa ngi koy wax wax nga lu am solo mooy ñi nga xam ne en tout cas ñu jàppale woon Pastef il est temps nag ça veut pas ñu ngi ci nguur gi rek. Mhm. ñu léegi dañuy dellu croiser les bras. Mhm. non man je pense que dafa war a continuer jàppale bi dafa war a continuer. en tout cas sur tous les plans. maanaam surtout ñi nga xam ne moom tamit dañoo toog pour déstabiliser n'est-ce pas donc réew mi. waaw man daal xam naa ne ñoom am nañ programme. ñi leen woteel xam nañ ko léegi nag programme boobu la ñuy appliquer. loolu nag c'est comme euh, une opération chirurgicale indispensable douloureuse dëgg la mais indispensable donc bu ñu dellu gën a mukk dëgg la bu ñu dellu gën a mukk macha allah bu ñu déglu sax ñooñu parce que c'est normal que ki nga xam ne euh, bu amoon sagoom doo doo am pouvoir bu la bu la dee ŋàññi kay du la bett. la bett vraiment ah. wax dëgg yàlla donc li gën a li ma gën a séentu ci ñoom daal mu ñu bañ a dellu gannaaw. parce que loolu moom ça serait catastrophique. waaw nga jël mm. ay mesures yoo xam ne ñi la wooteel xam nañ ne am na njëriñ ci réew mi ànd nañ ci. Mm-hmm. nga ciy dellu gannaaw ngir ñu lay critiquer. loolu moom ëpp naa xalaat sax. ëpp naa xalaat. donc daal nañu xam ne daal euh, li yàlla wax rek mm-hmm. maanaam. Euh, ku nekk ci dëgg daal moom yàlla moo lay jàppale te jàppale da nga réussir macha allah hmm. na yàlla jàppale leen kon ñu ngi dellu di amaan mbégte bu baax a baax ci dalal biñ la dalal wax dëgg yàlla ndax saa su comme ñu ko waxee rek hmm. ñu mel ni yow yéen lañ soxla seen i xalaat macha allah seen i jàngat hmm. kon ñu ngi ñaan yàlla lépp li nga xam ne ni génn nañ ko fi si kàddu n'est-ce pas mu nekk loo xam ne lu luy am njëriñ la ñu bàyyi nga tëjal ñu jotaay bi waaw maa ngi leen di sant rek encore une fois te itam li ngeen def daal vraiment jihaad la macha Eh, Ibrahima Khalil Lo mi nga wax léegi sama doom la Ibrahima Khalil Lo sama doom la eh, ñoom ñëpp sama mbokk la ñu kii mhm. donc euh, vraiment maa ngi leen di félicité ci choix bi ñu def di nekk nekk seen euh, seen euh, sponsor sponsor effectivement vraiment c'est un bon choix nañ ci continuer nit ñu baax yi bare nañu ci ci ci ci dëkk bi mhm. xanaa peut-être seeni choix mooy wuute mhm. waaye yaakaar naa ne soutenir chaîne yu mel nii loolu moom lu am solo la. parce que day tax rek kàddu yàlla feeñ. Hmm. nit ñi gën a xam seen seen seen seen seen culture islamique et puis di ko dund. macha allah donc jàppale leen daal vraiment euh, lu am solo la. donc donc maa ngi koy dénk sama xarit yi nga xam ne macha allah. lu ma yëkkati ñaari ñoo koy àggale. di ay boromi xam-xam yu bëgg yàlla. dem hmm. euh, di boromi alal yu yu gëm yàlla. macha allah ñooñu itam maa ngi leen dénk ñu boole ci seen euh, seen seen seen ñi ñuy jàppale. ñu boole ci chaîne yi nga xam ne. ci liggéey lislaam lañ nekk macha allah saaru système la daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba lu mel songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu waqfu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu lool mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn na ko société mbay indilee bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci biir kon mbokk jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala orangement Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 ak lu ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax mille francs dana bari ci moom amaana ab cinq cent la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal boo boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu rek te nga man ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la qul ma inda allahi xayrun min allahi إياه